noo ngi leen yi nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmmi yàlla ak barkeem yërmandeem ak xewlam ak suturaam yàlla na ko borom bi tabaaraka wa taala seen kaw te wàccee ko seen kaw njaboot tabaarakallaahu yéen a ngi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Ndiaye ci émission bi nga xam ne da koy am ak yéen wi jot ci waxtu wii ngeen ànd ak moom ci Mouslih TV mooy li ci réew mi li ci réew mi nag émission la boo xam ne fa tabaarakallaahu dañ koo àndi lépp loo xam ne jàpp ne njariñ la te mu ne ci réew mi rek ñu war koo waxtaanee rek dañ koy bokk teg ko ci taabul waxtaanee ko ngir fa tabaarakallaahu ñu mën cee jëlee njariñ ndax fa zakkir inna zikra tanfaul muminin la yàlla wax de fàttali ndax fàttali dafay jëriñ woy gëm yi tabaarakallaahu tey ñu bëgg a waxtaan ndaw loo xamante ni royukaay la ci képp kuy ndaw ci jamono gi ñu toll fa tabaarakallaahu jël ko mu nekk ci jamono yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nekkoon ndaw loo xamante ni fa tabaarakallaahu at ya lu néew la woon waaye nag fan ya lu gudd la woon ci jaamu yàlla ndax dañuy wax ne gudd fan nekkul ci at yi bari waaye gudd fan moo ngi nekk ci jaam boo xam ne yàlla wàcce na ko ci kaw suuf waaye mu xam lan mooy responsabilité ci kaw suuf ndax yàlla def ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni bindu ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu kon ndaw li ñu bëgg a waxtaanee xam na loolu bu baax wala boog xamoon na loolu bu baax ba tegoon ci li nga xam ne moom mooy tànkam saala ba ndaw la boo xamante ni ni fukki at ak juróom la amoon waaye nekkoon ndaw boo xamante ni ni miinoon nañ ko ci jotaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba jamono ju ne fa tabaarakallaahu daan nga ko fekk muy toog ci jotaay bi yonent bi alayhi salaatu doon toog ak i saxaabaam seen ala ba bari woon na fa tànk waaye nekkul woon xale boo xamante ni ni foo ko fekk moo ngi ci biir moroom mi di fo waaye dafa nekk koo xam ne dafa am lu yàlla lu yàlla teeloo defoon lu mu teel a def ci moom mu xam ko waaye mbokk yi mu amoon benn bés rek fa tabaarakallaahu yonent bi alayhi yónni sanale ba mbokk yi mu nekk lu doy waar waaye mu doon li nga xam ne lu daw yaram la sanale ba keroog ba ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yóndee mu jaar ci benn mbedd ci koñ waaye bu ma ko bu ma ko mënee wax dama naan dafa jaar ci koñ wala ci benn mbedd waaye jamono jooju nga xamante ni ñoom seen wanag yi ñu daan sangoo rido lañ ko daan def moom moo nekkoon bunt wi waaye naka lay rombee rek daal di gestu tombeek benn xale bu jigéen moo ngi sangu ci wanag gi rek rido ba daal di naaw waaye saala ba li ko naqari mooy dafa gis li nga xamante ne moom mooy forme xale bi jigéen bi waaye gisul sax li ñuy tuddee li nga xamante ni moom mooy ngeen baal ma ci kàddu gi moom mooy sexe waaye nag mbokk yi xolle li saala ba wax benn baat la njëkk a wax mu ne wallaahi la yunzina llaha fiha al ayat aw yajalni min al munafiqin wallaahi maa ngi wat yàlla ni yàlla dina wàccee ci man aaya boole ma ci naafiq yi lu toll ni yenent bi aleyhi salaatu di ma yóndi amul lu lu may def lu dul di xool awraay jullit ñi mbokk yi tem bi ñuy waxtaanee de waxtaanuñu ko rek ngir di ko romb waaye képp koy ndaw dama bëgg nga bàyyi xel bu baax ci li xale bi di naqarlu li xale bi di misère ci loo xamante ni ni teyu ko waaye nag naka la xale bi doxalanteek li nga xamante ni gis na ko te ko keroog ba nga xamante ni loolu dikkal na ko saala ba ndeysaan nee na moom def na baakaar boo xamante ne ni jomm na di delluwaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di yóbbu baakaar bi nga xamante ni moom la def laa ilaha illa allah laa ilaha waaye tey xoolal ci ñun nekk ay ndaw balaa ñoo am lu ñu neex waxuma la sax ñi koy ñi koy ñi koy ñi koy ñi koy seetaan ci ay tele wala ñi koy seetaan ci li nga xamante ni moom mooy ci leneen ak leneen waaye dañuy télécharger ci sunu sunu téléphone ay naka sudul noonu góor ak jigéen ñemee séq yow nga tiim ko di ko seetaan sa téléphone te du la déranger waaye ak ndaw a nii gis loo xam ne ba mu ko gisee tayu ko waaye nag jàpp na ni moom dafa def baakaar gu rëy ne tey yàlla dina ma boole dina wàccee ay wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni man ci naafiq yi laa bokk ndax acte bi ma def waaye xale bi nag boo ko loolu dikkalee li ko ci fekk mooy def na moom rus na wala jomm na di dellu fa tabaarakallaahu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam du yóbbaale baakaar googu ndax moom li mu def ci xelam rek moom mooy moom moom ala kulli xaal yàlla moom yónni na jibril ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye gannaaw ba mu fa jógee xale bi ndeysaan nekk ci benn xuntu ci xuntu fa nekk ay fan waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di toog ne man kat di wax ak ne ko man kat damaa jaaxle Saalaba ba ma ko yóndee ba léegi dellusiwaatul ci kër gi waaye moom lan moo ko war a mën a téye ba delluwaatul ci kër gi ah Omar bun Xattaab ne ko est-ce que yëfi xale jàpp ko rek nga yóndi ko mu dem gis ay moroom fàtte li nga ko yóndi di fo mu ne ko déedéet Saalaba du def loolu ndax fu ma ko masaana yónni day dem te ñëwaat waaye li ko téye ba heure bii te mënul te ñëw man jaaxal na ci noonu lañ nekkee ay fani fan mënuñoo teg saala ba bët mënuñu koo gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di yónni ki nga xamante ne moom mooy Umar ak Salmaan yenn ci saxaaba yi ay fan ñi di ko wër di ko wër di ko wër ba ñëw ci benn kàcce Umar bun Xattaab moom moo nuyoo ne kat ñun fan yëpp dafa am suñu benn xale bi nga xam ne moom lañuy ñuy seet ba mu génneeg léegi mën na ñeent fukki fan mënuñu ko teg bët yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko yóndi woon waaye booba tey delluwaatul ci kër am benn waay bu jug taxaw daal ne est-ce que nekkul xale bi nga xamante ne chaque jour mooy ñëw di naan si soow moom daal heure añ lay génn ñëw ñu ko may meew muy naan waaye meew bi ñu koy jox muy naan du ko mënta du ko mën a jeexal ndax ak ay jooy mënu koo jeexal ndax ak ay jooy loolu daal jaaxal nañu ah Omar bun Xattaab laaj ko nu xale bi mel waaj na ko boo toogee léegi léegi léegi mu ñëw soo toogee léegi mu ñëw naan si meew waaye ndeysaan yenn ci saxaaba ñu daal di làqatu di xaar saxale ba ñëw waaye ba saxale ba tëllee ñëw fi nga xam ne ni foofu lañu koy mayee meew pour mu naan saala ba ñu jox ko muy naan waaye ci biir naan boobu muy naan moom saala ba fa tabaarakallahu di jooy bay xëxët Umar bun Xataab jékki-jékki génn ak Salman ak yenn ci saxaaba yi waaye xale bi mbokk yi bu mu gisee Umar bun Xataab kàddu gi mu ko njëkk a laaj mooy ndax yàlla dafa ma boole ci naafiq yi Omar ne ko laa xadri man xaw ma mu ne ko yow Omar bun Xattaab bàyyi ma ma dellu ci xuntu wële fee ma jóge moo ci diggante ñaari doj yële ma dee fa waaye jomm naa di dajeek Yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di yóbbaale baakaar bi nga xamante ne tey moom laa def mbokk yi ñoo ngi ci ci départ ga nee naa leen xale bi li ko yóbbee jafe-jafe yépp jafe-jafe bii muy dund du lenn lu dul ni lan dafa gis awraay jigéen te ko waaye mbokk Omar bun Xattaab daal naxante ak ki nga xam ne fa tabaarakallaahu moom mooy Saalaba naxanteeg moom ba fexe bu yóbbu ko këram mbokk yi mu doon lu daw yaram mu daldi di ñibbi Omar bun Xattaab ak saxaaba yi yóbbu ko këram daal dellu ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko gis nañ Saalaba gis nañ ba waaye nag fa tabaarakallaahu mu ngi këram. boo bëggee sax mën nañ la ko indil yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne baleen ko fa incha allahu man dinaa dem seeti ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di sol dàllam dem seeti saxale ba mbokk yi seeti bi mu seeti saxale ba nag foofu moo daw yaram waaye seeti na saxale ba ci façon ba mu ko seetee ñëw ba kër saxale ba jël ay tànk maanaam jël ay bopp saxale ba teg ko ci ay teg ko ci poojam xale bi feebar ci saa si ndax kenn ci ñun tey moo ngi def baakaar mu jaral ko mu nekk curu curuqam di ci jooy di ko naqarlu tontu di la mooy déedéet contraire bari na tu ci ñun góor ñi balaa am balaa ñoo am tey lu ñu neex mooy dañoo def naka sulu noonu toog ci pénc bi fa tabaarakallaahu di ko tiitaroo di jaay ni yëfi gër yëfi yëfi yëfi jàmbaar la yëfi gër yee la te ku ci nekk ci noonu war na cee bàyyi xel baakaar nit du ko def mukk toog ci penc di ko ndamoo bu la yàlla suturaalee da ngay suturaal sa bopp ndax ñun ñëpp ci sutura borom bi tabaaraka wa taala la ñuy doxee waaye bu doon fa tabaarakallaahu lépp lu waaye def ci baakaar yàlla def ko muy màndarga ci sa kanam ñu bari du ñu génn wallaahi ñu bari duñu génn waaye nag li yenent bi alayhi salaatu wasalaam wax saala ba muy kàddu yi wala li saala ba wax yenent bi alayhi salaatu wasalaam muy kàddu yi daw yaram mbokk yi dañuy wax ni ku ko bëgg a xam rek fa tabaarakallaahu nañu topp ay bis yi di ñëw fa tabaarakallaahu lépp lu ci jub ci yàlla la lépp lu ci dëng rek sunu matati la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.